diggante exal moom je sais que comme que dem nga ba toll si état bi dem bay suicidé wu. naa la ko far euh, may benn yoon. def naa loolu mooy li nga xam ni euh, mooy dëgg parce que mbëggeel dafa dafa fort. koñ bi jaratuma fi dara. rus naa sax ànd ak samay naw te koñ bi fii ku ma fi gënu gënoom. ngay doxaan sa jabaru xarit nga xam ne da koo nga yow nga wëlbatiku dem ci su eh, merde yow xoolal merde yow lan la waaye ju ma bëgg rek ay wax ñàkk fayda kuñ kan moo ñàkk fayda fa sama jabar la ci buum la nekk da nga diglu bu ma diglu da nga xam fi ma jëm dama bëgg nga bay sama jabar enlève ta main sur ma femme. mais attends père man sa jabar top ma man sa jabar top yow sax man si yow. Bo fi ñëwoon dama fay ñëw fan yépp dama la soxla ah bon waaw mais ñëw bu ah bon ah gaawé ma gaaw ma ngi Euh, man ak ma. Mhm. dañuy préparer instant bi suñu mariage bientôt. waaw non lii amul nu mu Senhora. Ouralé! Dila, é. Ai, eu, na fé. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Content, trop, trop, trop. 가능인가? 아닌가? 준비사마 하나님. soxna si yaa fi indi kii qu'est-ce qu'il y a lu man damay liggéey moom day gardien foofu muy gardien man foofu laa laa doon liggéey madame bi war ma fay suma xaalis ma ñëw di fayeeku mu ni man duma dugg Après, quand je suis venue, il n'a pas voulu que je voie madame. Il m'a traité de criminel. Oui. Criminel Oui. Et après, mon saga, ma mu mu à la à ne ma Je suis ndax Madame, Je suis Madame, Je suis hôpital francs j'ai payé ça. monsieur le commissaire gis nga. mo la def li mhm. waaye yow xanaa da nga dof am da nga kangal bay ki jigen di ko dor ba bay toj kanamam gi yow laa wax. commissaire xam la lan bëgg ñi nañu respecté garde ñii man fi may dañ ma faa teg patron la madame mën la ni audience je venu dans la maison y a pas d'audience, je parti dans la maison Qui nag venu? ma ko def nii dama moy dama may de ndax toi madame sax defoon na bind bind moom mais madame bind na certificat de euh, perte pour di ko Maradona bu mu dugg ci kër gi bi mu dikkee di risqué ak man ñi ma fat fos nañ dugg ci kër gi ma ne ko doo dugg mun ma doo dugg mun ma lay dugg waaye nga di ko dóor ba nii dama koo ma déggoo li ma la wax sa doom yow sa doom sa doom man yow sa doom laa de ah. kii li mu ma def sa doom su ñëwoon def ko ma def ko nii lu ko raw kii kii doful yow laay waxal de yow commissaire yow sa doom su ma ko defoon

yow jubal ton problème sera réglé ko yee sawaay jaajëf waay gayen sa mili laa doon lijjanti gayen yow man sawaay man bagage yi maa ci toog on ah, fi moom affaire yi mool trop ay bagage yu mool la ñuy jaay non dëgg la dëgg la

waaw yow xam nga yow yaboo ma yaboo ma te doo ma yab ba abadan sa paa ñëw na fi léegi di ma kereel problème xam nga gaynde buñ ko yabee ci doxin bi la man bu ma paa bi yabee rek yow la dama lay wax lenn lu bëriwul dama bëgg nga tey sa tànk ci man est-ce que yaa ngi may dégg ay bébé arrête muy jóge ci yow di ñëw ci man ok bëggantewu ma ak yow na leer da nga am jëkkër dama nga gérer sa ménage à part d'aujourd'hui bu fi ñëwati génnal sama place s'il te plaît génnal. bu def ni oh oh fils génnal way dimbala ma way boy bu ma yaxal di la la yo xala man rek maa fiy góor dimbala ma rek ngir yàlla dama nga tok sa sey nga gérer sa ménage bàyyi dama allez to to di la la sama nga ma waay yow ah naka la nga trop. euh gars euh dama bëgg ngeen de prendre liggéey reprendre reprenez travail vous serez satisfait. man gis naa directeur waxtaan naa ak mom directeur mom amul ben problème mom néna il va régler la situation waaw mo amul ben problème léegi xam nga atelier bi won nañ ko bàyyi ni mo que mo ki ñàkk liggéey il ñu jóg pour que les choses avancent liggéey di dem len ngeen reprendre sen travail reprendre atelier bi liggéey bi doxaat comme il se doit après loolu yéen vous serez satisfait directeur mom nee na dina régler problème bi yëpp amul ben problème hmm? loolu laa leen di ñaan leen def waaw <coughs> waaw waaw waaw nu mu demee nii waaye lii lan la ah waaw waaw non wóor la muy wóorul yàlla bi lii liggéey liggéey tuuti la nii mais garaawul booy boobu yaay naa def ci moom Anta Anamis. mi ngi ñëw dafa jàppoon mi ngi ñëw. Bon, si vous voulez. On bon elle va prendre le train en marche alors je vous ai appelé pour nous voir par rapport à quel qui de parce que Mais papa je la ok waxtaan wi leen dong la kër gi ni muy doxee laa bëgg mu changer on dirait que dans le bateau il y a pas de capitaine dafay jeex revoyez vos comportements revoyez vos comportements et particulièrement toi Miss pour commencer regarde comment tu t'es t'es habillé Miss war ngaa solo nii sa lépp nekk ci biti lii war nga ko génne ci mbedd mi au nom de quoi pour yow il y a àddina bi ou voilà tout ce que bon te semble voilà tu le fais d'une manière comme tu le veux mais mais c'est pas comme ça la vie à on réfléchit je veux que tout revienne en ordre dans dans cette maison Miss Miss tu m'as gardé ce portable s'il te plaît ça c'est un acte d'indiscipline sa baay di wax ngay jël ay portable comme si li ngay wax li muy wax safu la maman lépp yow la jàppale woo suma papa si dara ci miis miis comportement bi mu nekkee yaa yow yaa tax mu nekkee nii mi ngi nii toog de duma ko nëbb heure bu ne lay dugg heure bu ne lay génn du yenn du fanaanal wax naa nag ba sonn yaay jàppale sama papa sama papa sonn na de yow ku seytaane nga waaye yoo defoo dara sax sa papa la man yow yaa ngi woote réunion de famille mais lépp danga ko def pour indexer Miss mais Miss deful dara Miss moo ki yee yem ñoom ñaan ñoo yem même képp si kër gi pourquoi ngay wax Miss Miss Miss yéen ñaar ñoom ngeen topp Miss Miss Miss la Miss Defu dara dafa toll ci jamonoom bàyyi leen ko mu xàppi. T'as entendu ta maman? Voilà ta maman. Mais le temps le jugera. yow autre qui est sur la bonne voie. bu la kenn influencé ba nga wàcc qui wi nga nekk. li ci des li ci kanam raw li D'accord, pas. Mhm. Mais restez moi chez le commissaire. <laughs> ah tout à fait tout à fait monsieur le commissaire <laughs> Pour voir voir Waouh, waouh, Waouh waouh. d'accord alors je vous appelais euh, c'est à propos de mon gardien la Voilà, voilà voilà oui oui ah ah oui mon moom mon toi, merci monsieur le commissaire merci de votre compréhension merci beaucoup merci beaucoup monsieur le commissaire je ne manquerai pas et bien des choses à, votre famille monsieur le commissaire allez au revoir boy. j'ai ah. <laughs> ah. ah. une très grande nouvelle à t'annoncer. C'est boy, j'ai décision j'ai une très grande nouvelle à t'annoncer boy. booy une bonne fois pour toutes. koy takk waaye na fi. oh oh, oh, est-ce que xam nga une moom mosoo wax lu ma lu parce que ma noppalu ko. sonn naa ah. li da ko won def bu yag boy ah moo tax de daw ci ba ngay amé tank non la démé na te ku bëgg dé ha ah yow ci ci Cheikh toto am. pour yow la. sango ko juroom ñaari fan. ndax ku sàggan sa bop ba nga dalé liggéey bu li gisuma ci yow oh, ben avancement. ndax tardement. yaram dess koy defal dugalal sa poste sango nang ma xeeb nag. ah xeeb. Mhm. donc xeeb ma de. <laughs> Wa baax Wa merci Jan, Seeti Diagne Demi bi di deg ni. ak Vosé sangé. Wa ñom ñaar ban circonstance lan bokku. <laughs> Ku di, rek di. ah <laughs> tonton académie. ak Vosé Sangué vous sangé ak circonstance. Eh. ni nga boy da bari de c'est trop. Ay xolal. Na la tontu. alhamdulilah waa baax na waa na bar nag na bar patron gis naa ni nga ma assisté ca police xam naa su dul woon yow ginnaaw yàlla ak yonent bi dinañ ma tëj waaye ni nga ma suturaale yàlla na la ko yàlla suturaale sa benn euh, frère bu ñuy wax Ndiogu Balla Menda Gueye. Baabu. waaw Baabu. Ndiogu mu caat ci loolu. moo lay seet. nekkuñu. Ndiogu. dégg nga xale boobu gis naa ko gis lool soxla yi. salaamaaleykum la famille. ah eh, waaye sama nijaay ngoog. na def. nam la waaw yow. yow frère na mu nan la. Ndiaye ça va. ba yaa ngi am jàmm. alhamdulilah tonton ça va. ça va yaa ngi fii. ah fii Ndiob yow. temps yi woo ma de. ah mais tonton da ngaa nekk Cheikh nii lëkkaliku moo tax mais bi ngay jóge dëkk ba noo yamoon rek ça va. nag village. mais alhamdulilah nag Cheikh tout le monde va bien. et eh, le papa et eh, la maman. oh papa ak maman moom Cheikh. sama waay nga de mais pour wax la li am. pratiquement le Cheikh Pape ak mère bu mel ne alhamdulilah nag ma fekkee tonton mii. Mm-hmm. ndax olof nee na. Mm-hmm. sa yaay sa moom daal sama nijaay mii. Mm-hmm. kon mën nañ mën a waxtaan. mel nan la Cheikh. ne leen ñëwatoo bëgg. ñëwatoo ngénte ñëwatoo la dara nga topp sa jabar ji Anta Cheikh mu yàq sa adduna. mu takkal lay jaadoo nen ngay xóotal xóotal mu xañ la say bokk yóbbu la ciy bokkam Cheikh lu xew. Manque de temps. Non, je ne parle pas de. manque de temps ne parle pas de temps tonton. qui s'en va pour sacrifier à temps un peu Cheikh. cher. am bac mu peu lu mu je suis un peu plus formation. Je suis un peu plus Je suis di jour pour lan la investissement pour bu que taxaw man yaakaaruma la mais baa bi yaakaaroon na nga moom mi sacrifié léppam ndax yow. Mhm. te booy jur doom dafa am lu tax di ko jàppale. pour mu mën la taxawal. mais li baa bi def ci yow yëpp. mais nga topp sa jabar jooju te Cheikh meloo woon nii yow caay te gentleman. ça ah. ça suffit hein. bon d' accord man bëgguma la kii non non non non. ah ça va pas. meloo woon nii de grand. meloo woon nii à nga yow li ngay wax ci sama nopp bi après mais dama bëgg nga xam ni man faalewuma la village ci sama jëkkër ji man rek la faale mhm. looloo dagg seen xol mais nga bon yow village bëgguñu nga ñëw yow munoo nekk village yow ay mbinda lan la wutali ki boye ki ay xaj yow ba village nu lay doye xam nga sa bop yow Cheikh rek ma nga soxla ci famille bi à part Cheikh ñun soxlawuñu la oui. modérer sa langage. d'accord accord D'accord, mais wuy ma Cheikh man man na modérer mais entre mii. dama ñëw pour wax ko deug mais Bambara mais Bambara. qu'est-ce qu'il y a encore am so ñu ngi jigéen ci néeg bi boo ñu dafa yem ah demal nga régler problème am non régler am so il verra aujourd'hui de quelle voie je me chauffe reewandeem gi maa ko mujjee wax famille bépp ngi koy wax village ñëpp moom la ñuy wax reewandeem gi moom la xale yi defee loo làmbe dagga dagga doy madame nga xam fii maa fi dogal li ma wax moo fi am dagg gënal ma ki ci biti waay acca yow xam nga ko xam nga koy waxal xam nga ni Ndiogou Babou Mbenda ngay waxal. man sama yoon nekkul ci Modou Mbenda Mballa Mbenga Gueye xaw ma man xaw ma xaw ma leen ñooñu. Hmm. parce que man sama liggéey laa nekk. dimbali ma waa yow sa nga xaw ma rab nga xaw ma segg sa mbaxane mi. s'il vous plaît yow chez toi comme ça. ah s'il vous plaît Ndiogou tàgga. waaw Modou Mballa Mbenga Gueye. moytu sa bopp. yow bu du woon yow am na lu may sax quoi. noo gaynde mi Ndiogou waaw. pardon non Cheikh dinaa la wuyu mais amoo dara loo pardon pardon mais ren na la trop village mais ren na la. waaw ñëwal na jeex jeex jeex. yaa ngi ñàkkal ya, village ci boppam laa bëgg nga cëppi leen village du ñu ci xamoon village di nga leen de sa jëkkër ji ngay nengal nengal di ko tam-tamal ni teng si village la dóor ndongam ñew fi ba mën ko gis bëgg ko kon respecté wa village mo la war yow ak képp ku melni yow nak ndax da ngay na bari ci dëkk bi li lan la ni réew a rew bu réew wa village bi ngay japp di pong pong di ñu ñu ku ni ba nga de. réew nga ren trop. gis nga man j'ai pas besoin de connaître waa village jéemu ma leen xam bëgguma leen xam soxlawuma leen xam. yaa ngi may dégg man fii laa xam sama jëkkër sama kër di dund lu neex. ku bëgg jóge village ñoo fekk ma ci ku bëggul ci jàng je m'en di loolooy sa mooy sama wax dangaa amul sax loo wax sama waxu ëllëg. waaye yow jàll ma ne jàll ma ba mu waxee mooy bagat bagat ji moo da noo xamul mais ñun xam nañ suñu bopp ñun sëpp pour ndawurus ak ñabas baase ku nu laajte ca culóor ak caar toi là ici encore man tàkkuy fii eh yow ñàkku nga kilifa de où est ta mère bul ko ligganti dafa doy oh. ngay mbéppi mbéppi eh sa yoon newu ci ngay mbéppi mbéppi nii yi mënul may nit ñi jàmm dañu see toll damay ñëw ba mu neex dangaa wër a wër ba mu nekk nga ne doj toog toog yor sax kër te encaissé négal weer bu dee ñu jox la xam lu ñu def dañuy dund dañuy bëgg ñu jàmm yow koo moom kii dama koy wër bu ma neexee mu lay neex mu lay naqari damay ñëw waaw lan la. prenez 아하. 에, 예, 예, 알아. 미치니. xam naa nu mu demee yow yaa tegal maire bi yow yaa ni ko damaa nekk ak jigéen ci biir néeg bi. no gis nga gis nga booy yenn dëkk gi yéen dafa miti. parce que sobe rek ngeen. te boo soobee boobu la ñuy bañ ci kër gi. fii dafa am gàllaaj et puis ñun dañu bëgg di sangook suñuy gàllaaj ak suñuy téere lépp toj na ndax yéen du dugal di génne jigéen non c'est pas possible dama koy wax maire dama koy wax ah. xoolal si sûr xoolal. Hmm. xam nga lu ma lay xamal. Ah. man dugguma ci sa vie privée. kon waroo dugg sama vie privée. Eh, c'est quand même dugg sama vie privée. yaay kan. bo ci duggee dama lay bousiller. mooy bousiller dama lay yëy. dama lay je te bousille hein attention booy <laughs> mooy tuba de. grand bu ñak fay non dama ah, de de. Eh, ah. toi assieds-toi. mais man damay jàppale. eh assieds-toi. je vous cause non. waaw waxal ne waaw. waaw sax na mu ngi daal maintenant vous avez fini de parler d'églou, man à partir d'aujourd'hui tu as vu le robinet là ah je suis resté là mangi suis yow Je tour. tu connais kana? Ah, Bon. Deuxièmement, Douchoubi, à partir d'aujourd'hui, vous allez à la douche deux fois par jour, matin et au coucher. Et mhm. Douche, Et eh. douche, tu connais pas douche La douche Douche, ok. Madame Yonga, combien de fois Deux fois. Deux fois Oui naka lañ mëna a nekk ci kër dem deux fois man du ma dem deux fois douche quatre fois lay dem douche quatre fois dégg nga li ma wax te sama njaboot gi aussi dañuy dem douche xale yu ndaw yi booy yi dégg nga sinon tëjul douche bi nga xool ci bi nga xool ëtt bi lañ koy door dóor cabinet pa pa wóor na non wóor na yàlla yow ñu xanaa da ngay xaru hmm. la laxa toog non amul problème kooku moom tëjal douche bi nga xool et puis la moo la il faut donner ça à la fin du mois deux mille deux mille deux mille pour acheter, pour, pour, pour nettoyer les toilettes. Parce que c'est vous qui entrez dans les toilettes. Moi, j'ai ma salle de bain. OK qui non, on na ah. Ah. justifier ah oui ah loi ça ne peut pas passer du du si be passera pas. lii man maa la ko wax. xoolal kaani laa ci teg. nan ko bañ. ah kii daf ñoo bëgg kii ah. trop c'est trop ah.